Palen Cuuraay Abi Produit Cissé Global Service ñu leen di may góoru bay ma sëy ni képp koy jigéen bëgg nag rafet lool taaru jekk teg ci nag am teint bu mucc ayib dawal gaaw nga dem fa nga xamante ni moom mooy ci abi produit abi produit di jaay ay diw yaram yu baax moo xam nga nekk teint marron teint noir wala sax nga nekk teint dawal gaaw dem seeti ki nga xamante ni moom mooy abi produit boo fa demee dina la jox ay diw yoo xamante ni dafa méngoo ak sa yaram yow mi nga xamante ni da nga doon xeesal ba xeesalatoo sa yaram cere yàqu amoo foo jëm dawal gaaw nga xooli abi produit fa demee dina la defaral sa teint ba mu baax di nes nes nga bëgg cheveux naturel boo xamante ne yu xew ci jamono la moo xam rew xeer ak bépp xeetu cheveux demal nga seeti abi produit boo fa demee di fa fekk yi nga soxla wala sax ay crème de visage yoo xamante ne dafa lay defaral sa kanam ba muy nes nes yi képp ku gis daal di lay soob abi produit ba tey dafay jaay li nga xamante ne moom mooy ay pâte dentifrice yoo xamante ne dafay xeeñal gémmiñ abi produit ñu ngi fii ci diwaanu Géejawaay janoog lycée Seydina Limamou Laye

yow mii di jigéen di ma déglu nga bëgg lu baax bëgg sa boroom kër di bëgg ci yow H24 dawal gaaw dem fa nga xamante ne moom mooy ca Falen cuuraay adresse bi benn kott la boo fa demee di nga fa fekk ay xeetu cuuraay yu mucc ay fekk fa ay and yoo xamante ni nag ay and simple la waaye tamit di nga ay and yoo xamante ne ay and électrique la da nga koy branché xet gi di génnee a fépp ci biir kër gi Falen cuuraay yemu ca boo fa demee di nga fa fekk ay nuisette yu mucc ay ak bépp baax baax boo xam xamante ne jigéen da koy soxla jamono jile ngir neexal sa Fallène Cuuraay adresse bi fenn kott la yaa ngi toog di ma déglu bëgg jot ci seen ay produits gaawal gaaw nga woote ci 77 629 16 80 629 16 80 wala boog nga doxal ko fi nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Géejawaay boo fa ñëwee dinañ la teeru tatagal la. Fallène Cuuraay daal. moo meilleur kay. Global Service implanté wu nañu nag ci digg Ndakaaru Ndiaye di jaay ay matériel électroménager yu mucc ayib yow mi nga xamante ne da nga soxla téléphone ak tablette frigo ba ci sax li nga xamante ne moom mooy ordinateur portable dawal gaaw ci Cissé Global Service boo fa demee ay matériel yu mucc ayib yoo xamante ne lastikri la maanaam dafa ànd ak jamono ah, Cissé Global Service jéemuñu ca bu ñu la jaayee matériel dañu la koy garantir ab diir bu yaatu ah, Cissé global service ba tey dañuy def li nga xamante ne moom mooy transfert d' di jaay ay matériel yoo xamante ne da koy soxla ngir équiper sa kër ba mu daal di rek taaru rafet képp ku fa ñëw rek daal di lay respecté ngir nga jot leen wooteel ci 78 ak 485 60 03. jaam eh eh taxawal taxawal taxawal yow eh. waaye papa tey jànguñu suñu prof daa génn. yow eh du ma sa morom mu naan suñu daa génn suñu prof daa ñii dañu may yóbbaale ba kër ga rek. ndekete yow soo waree jàngi da daw nekk ci sareet yi ah. xam nga xam nga soo mu seen kon na ma mu koy werante dañoo jàngul ñii dañu may yóbbu ba kër ga rek. booy dem leen jàngi te bàyyi seen caaxaan yi ngeen topp ci fas yi ah suñu kii eh. wàccal. eh booy yéen après baay. ko sóoru almasaar rek la ma doon. wax ko sa baay li may waxatee ngi nii yar amu leen ko. ko sóoru ba almasaar boobu boobu boobu. ko sóoru ba almasaar ko sóoru nga lekk ko sóoru ba almasaar li nga gisee dégg yow père nekkee fi nii la ko sóoru almasaar nga oh. almasaar lu waay am. ma say ñëw la xëy na mu dëggal leen. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ah Diallo. ah oui. yaa ngi si jàmm. ça va. am nga sukar ah. sukar. waaw ah ndax almasa nga ni. almasa la. Diallo yow lan mooy sonn si almasa. ah lu saa si almasa. yow ku si dem sa kër laa jos fekkee almasa loo koy toon. eh yow loolu sooy nekkul loolu man la concerné. yoo xam nga lan mooy sonn am nga suukar nga jaay nga ni waaw nga jaay ma amoo suukar nga amoo suukar ma jënd ko feneen waaye almasa almasa loolu sooy nekkul dégg nga li ma la wax. ah Baye man de moom bu soobee. Eh, dégg nga bu ma waxati Baye ndax yéen a ngi maa tëgg bët. te yow sax léegi yow fekk almasa la yow ñaata ngay firi ah, sama almasa kay moom ñeenti téeméer. ñeenti téeméer nga laaj almasa. waaw. la nga di sa almasa. ñeenti téeméer. nga teg ko fan. ah almasa bi. man ak yow si koñ bi dana leer. ndax yow mën nga tëg bët. ah amoo lenn looy def nga mën nga jëm a tëg bët. yéen ñi nga xamante ne yéen a bëgg a ñëw si Habib. Euh, nu mu produit abi produit mii yéen ñi jóge côté Pikine gi da ngay ñëw ba si lycée Limaamu Laay bi nga wàcc yéeg ba mel ni kuy dem marché Ndiarème porte Limaamu Laay bi boobu ngay topp nag boo ñëwee fii boo laajee abi produit ñu won la boutique bi yow mi jóge nag côté côté yombol gi are jàkka ji ngay wàcc topp tali boobu noonu nga dugg foo laajte abi produit ñu won la ko ñi nga xamante ne ñoo nekk Touba si garage bu bees bi foofu ngay ñëw ci wetu station Oryx bi al station Oryx bi foofu ngay ñëw mhm. boo ñëwee ñu won la bitig bi lépp loo fi soxla am na fi. même numéro bi nga yor nii mooy jot bu Touba. déedéet am na yeneen numéro yoo xamante ne boo fa wootee mën ngaa jot waa Touba. ban la ban la bi nga pour bi nga xamante ne bu ma ko wootee Touba ma jot ko ndax man sama ndey mi ngi bawol. mi ngi bawoon te bu dee foofu doo dootuma yónnee damay bàyyi rek mu dem jën foofu. ma jox ko numéro téléphone bi mu venir ko foofu. te loolu nga xam bagage yi am fii moo am fee. waaye. jëlal sa numéro yi numéro bi nekk Touba. waaw mën nga ko jël 77. 77 352. 352 38 09. 38 09 waaw numéro boobu boo ci wootee. waaw mën ngaa jot waa Touba. naa la pat naa la laagal. ah yow. naa la pat naa la laagal. man ma la laaj kay moom xam waa Ndiaye. ah. naka am ak ah, ki nga jëlal mënul def almasa la wal nga ni ah Ndiaye yow yaa ngi firi almasa wala man maa ngi firi almasa alfa almasa moom ñëpp ko yelloo fi mu waaw def ko cam Ndiaye nag te tëg bët ki ma doon dégg yëpp maa koy doog a gëm Ndiaye teg nga maa bët teg ma bët teg ma bët teg ma bët ba lu la nga kenee ko sama diggante yow dara doyutul la nga dem indi ab Gambie mun nekk film almasa waaw parce que yow sa almasa ji dañ cee bëgg di dugal loo xam bokku ci lan laa si dugal si bokkut waaw bokku ci nu muy lan parce que yow sa almasa ji ni nga koy defee baaxul sa kot moo baaxoon na <laughs> xam nga sa kot moo baaxoon la man la almasa soo réussir nag man ah. ay nit ay si yow ñoom mooy di firi almasa nga ni maa loox loolu moo ñaata yoon ni ba pare li ma gën a naqari nag yow boo ko tegoon si yoon tax bu baax waaw waa Ndiaye saa gi baaxut lan la laaj ah 3 mille ko def Ah. almasa wax dëgg yàlla 2000 la. yow yow yow yow li almasa 2000 la. yow man xam nga luy problème bi. lan lu tax ma def ko 3000. a lan damaa def publicité ñëpp yëg ko. boobu nga ñàkk rajo yeeg ñëpp di ko wax. boobu nga ñàkk man almasa fii ci ko boobu nga ñàkk man. waay yow yaay too publicité da ngay toog gisee ñu kenn demul. muy ma waaw ñi man kenn demul ma laa xoola sama yoon nekku ci loolu muy lan waaw su la mettee ak su la neexee damay continuer almasa nu dem ah, baax na nga damay continuer almasa soxal may bëgg a yow mii di jigéen di ma déglu nga bëgg lu baax bëgg sa borom kër di bëgg ci yow H24 dawal gaaw dem fa nga xamante ne moom mooy ca Falen cuuraay adresse bi benn kott la boo fa demee di nga fa fekk ay xeetu cuuraay yu mucc ay a fekk fa ay and yoo xamante ni nag ay and simple la waaye tamit di nga fa ay and yoo xamante ne ay and électrique la da nga koy branché xet gi di génnee a fépp ci biir kër gi leen cuuraay yemu ca boo fa demee di nga fa fekk ay nuisette yu mucc ay ak bépp baax baax boo xamante jigéen da koy soxla jamono jile ngir neexal sa. Fallène Cuuraay adresse bi fenn kott la yaa ngi toog di ma déglu bëgg jot ci seen ay produits gaawal gaaw nga woote ci 77 629 16 80 629 16 80 wala boog nga doxal ko fii nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Géejawaay boo fa ñëwee dinañ la teeru tatagal la. Fallène Cuuraay daal. moo mayal kay. koor la ñuy waaj. eh Baye Masseye ñëw na xëy na mu dëggal leen. eh